salaamaaleykum gay dégg naa tiktokeur yi danoo dajaloo woon def seen i ndogu yóbbu ko waa université étudiants yi yegg fa nag di dàgga santeeg ñoom bay xeex ak ñoom dama leen di xamal ne leen étudiants yi da nga leen a war a respecté étudiants yi xiifuñu Sénégal moo métti mais kenn xiifu ba ngeen di jagar-jagalee ay ndogu te yoru leen sarab ndayem tiktokeur yi ñuy woowee tiktokeur sarab ndayem yoruñu ko benn vidéo influenceur dafa yomb Sénégal su si nous sommes les influenceurs baramat ñoom fo ni ma yan def nit star moo yóbbu Sénégal étudiants yi ñoom ñooy jot médecin ñooy dooni président ñooy régler banque yi étudiants yi kenn du ñoom respecté leen étudiants yi du ngeen sarab ndayam yoru leen dara ñi ni woowee tiktokeur yëpp dañuy war di yalwaat ci internet bi tus ñu ko xam nga lan mooy influenceur influenceur da am fekk nga nekk ci dara di liggéey di gagné yor entreprise di dimbali ay nit nit ñi naw la ci loolu di la roy lan mooy influenceur tiktok war di fecc kenn fayu leen tiktok bi fayul nekk Sénégal juddoo ci Sénégal màggee fa TikTok lu la fay sarab ndeyam yoru leen ko ñoom ñëpp nag laa wax ñi di woowee tiktokeur ak influenceur sarab ndeyam yoruñu ko ba pare bëgg a yab ay étudiants bu leen yab étudiants yi étudiants yi dun seen morom respecté les étudiants tey silib naan silibu étudiants yi nangam nangam étudiants yi leen tere ndax ñoom seen i silib sax dina set te yéen seen i tilim day seen i silib day oos ba nëb te yalwaar na ngeen nekkee ci internet bi yoru leen dara lan moo leen di may xaalis marketing de de de de communication euh, euh, publicité ay produits loolu ku leen fay 15000 francs 10000 francs 5000 ngeen def ko sarat ndayam yaru leen ko ba nga yëpp ay ay sénégalais yi mais Sénégal dafa neex waay koo ci gën ñu dëgg la micro naan la ah, yaa ngi wàcc ka oui mon soeur français voilà avec mais def star Sénégal nit moo yomb du ngeen sarat ndayam yéen tiktokeur yi nekk Sénégal et ñi yëpp. étudiants yi respecté leen coro coro Mandela jàpp nañ ko ci kaawu topp kaa bi coro yow ko ñàkk fay da nga dégg naa da biir da ngaa ëmb ñu jàpp la na wasinee ca prison ba di topp kaa ba cinquante prison topp la ci yéen yéen a ñàkk fayda di jël ay kaa di bind ci ay nit ban jàpp leen seen groupe baa ngay tas nag topp kaa wa kaay ma déye la ñu leen di xaw a rey umu xay rek ñëpp jàpp nañ leen yéen da ngeen a war a am dignité seen bopp am valeur yow moom coro àqu Macky Sall nguur gee la jàpp ni nga solee woon Macky Sall ak waa état bi xam naa yow moom ci ñuy mujj a génn ci ngay bokk boo fekkee sa doom ji di nga ba doom ji ñu yar ko fa mu màggee fa ñu ba moo ànd màgg ànd ak dooga ànd ak yow da ngaa ëmb noonu ku biir nu muy toppee ay da ngay ko war a tudde ngénte li fan lay doon mais di topp ba wasinee ca prison ba loolu dara jëru ko ci àdduna bi gars yi ñu yendoog jàmm yàlla yàlla defal